suma mbokk di sunu xarit dëkk Saloum muy le président Bira Sène maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay mais di la féliciter aussi ci liggéey bu am solo bi ngay def partout dans le Sénégal ak ci li ñu la dénk muy ahlu làmb loolu sagu waa Saloum donc maa ngi lay sant bu baax di la gërëm maa ngi nuyu El Hadj Moustapha di référence ci Sénégal di référence ci làmb ji mais di référence sport bi de manière générale nuyu sama ay xaritu bopp ku mel ni sama tonton Bekkaay ma lay nuyu di la sant bu la gërëm di nuyu Malick Thiandoum moom itamit waaye di nuyu sama xaritu bopp Lamine Samba Touba Laye ñoom bokk Kaolack maa ngi lay baax di la sa taxawaay ak sa ñeme péete àddina ñi nga àndal dafa jiital mon conseiller mon frère Abdou Ndiaye di nuyu Ousmane Diallo Seydina Libaas Papi Mohamed bu Faye li nga àndal ñëpp vraiment maa ngi dalal jàmm ci arène nationale di nuyu suma njabootu bopp mooy waa làmb te El Hadj Mbaye Sa Ndiaye ne fi teewal bureau bi sama frère sama rakk sama xarit Moustapha Gueye El Hadj Bourkhane Wade président des managers suñu jarbaat aussi Gaskel Diagne ñu nuyu ko nuyu président d'honneur Taabou nuyu Abdoulaye Diop président lutte sans frappe aji di ko jur ñu lay nuyu les jaar baax a baax xaaral ku ma demul Ndouga Ndouga bi kaw nag nuyu nañ la commandant Thiour mi nga xam ne moo organisé lii yëpp ñu koy nuyu vraiment di nuyu soxna yi jóge Pikine ak Ndakaaru yéen seen taxawaay rafet na wane ngeen li ngeen gëm wane ngeen seen bopp ñun ñu ngi leen di encouragé bu baax a baax euh, président Doro fi nga ñëwee dafa baax ci làmb làmb dafa toog mois de juin yëpp promoteur yaa ngi toog kenn dëggul làmb jooy ko mbër yi jàmbat ko ndax ne mbër yi dañoo entraîné wu te amul fi ñu ko tëggee dem amul fi ñu ngeen boo Dakar nii ci région yi mais dafa mel nag da ngaa ñëw rattrapé li ñu pet champion du cercle yaa ngi nii ne vraiment xale yoo xam ne ràññi am na naa fi ñoom Ngañ Seet ñoom Amady Ndiaye ñoom di Thiaka Faye ñu bëri Senghor ak seen microcentral ñu nekk aussi fële Adrien Senghor Adama Diouf nag su ma mbëri bopp la te Adama wax dëgg yàlla bu bëre moo mën ay moromam bu dee animation moo leen raw Malick Thiandoum Sala Bigué Lamine Samba euh, El Hadji Pagaye gën naa leen sant leen leen ki ñaan bi nag ba mu jógee ki ñu njëkk a wax moo nekk Doro Gora Ndoye ak Mbaye Diallo Mamadou Ndiaye nii dañ ko war a gërëm sant ko ndax tey compagnon bu fidèle la ku bëgg également ku bëgg Doro kon bu fekkee ne loolu am na dana rafet ñu tudd ko fii tey la mi Mamadou Ndiaye mii moo korte lépp ba ñu yegg fii nii gannaaw ba nga xam ne à chaque fois mu ngi wax ak Doro ñu teg ñaari fan dana dafa ñu leeral ko Cheikh Tidiane Niang ngay président ARES mooy école école de lutte bëggoon nañ nga mobiliser ñëpp écurie ñëw booy def individuel yëpp ñëw ñëpp bés ba góor président amateur na amateur yëpp ñëw également jëmal bés bi ndax dafa am solo jour ba léger ak mille lourds la léger yi deux millions la bëree mille lourds bëri trois millions wax tuuti laa xam mais ñi fi nekk ñëpp tey maa ngi leen di nuyu euh, suñu suñu mag yu baax yi yëpp toog fii maa ngi leen di nuyu bu baax a baax président CNG kontaan na trop ndax lii buñ koy organisé ci une semaine lañ ko organisé waaye boo ci jàpputoon tey du mel nii maa ngi gërëm ñëpp ñu déplacé wu ñëw fii tout rek. gis ma tey man ñu toog fii pour waxtaan ak waaw ma ne maa ngi gërëm képp fi ñëw tey waa Pikine yi ñuy déplacé ñëw uniquement rek pour fekkee ci lii man benn message rek la am mooy jàmm te Sénégal lii la xam bu ñu Macky gën a gore li mu defar ci lu baax. bu ñu nangu ku ko yàq message boobu rek la amoon lu may lancé bu ñu nangu kenn ku yàq suñu ñu nangu kenn ku taal suñu Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xam te jàmm rek lañu teg xippil xool nag mu ngi ci lu nekk lépp lu Macky Sall def ci réew mi ci lu baax ñun dinañ ko wane xaaruñ ci dara bëgguñ ci dara tey c'est la première fois mu toog sax di wax te li ko indi mooy yéen ñi fi toog ñëpp il faut gërëm leen ma remercier leen ñëpp pour képp wu ñëw rek maa ngi lay gërëm di la sant di leen jox rendez-vous yéen ñëpp lundi ak mardi pour ñu gën a fësal jàmm ci senegal te nag sargal président Macky Sall ci message bu rëy bi mu maa ngi gërëm ñëpp Père Bécaye merci euh, Mbaye euh, euh, Moustapha Gueye aussi maa ngi lay gërëm. Abdou Ndiaye gis naa waaye CNG euh, président CNG moom mention spéciale maa ngi lay gërëm bu baax ci suñu kilifa yi toog fii yëpp si tamit déplacé wu bàyyi seen lépp ñëw toog ak ñun presque lu mot trois heures de temps ñu ngi toog fii di wax maa ngi leen di gërëm Lamine Samba merci waaye ñii Abdou Ndiaye aussi vraiment merci beaucoup kontaan naa Ousmane sama frère Seydina merci euh, Fatick jërëjëf lépp loo xamante ne ne ci ci ci jàmm dee leen ko wane parce que jàmm dañ ko war a fësal jàmm dañ koo dañ koo yokk toujours nit ñoo ne ma dama bëgg nga may ma euh, euh, euh, tudd entretien wala loolu mais c'est la première fois moo wax c'est parce que lii ñu jëm ci jàmm lañ jëm donc nañu li ma ko waxaat rek naa ko waxaat naa la ko ba naa ko gën a boole lim fi defar bu ñu nangu kenn yàlla jërëjëf maa ngi leen di sant